collectivité yi jeexitalu état la démembrement état la kon suñu toogee tey foo xamante ni dañuy waxtaan nan la ñuy dexe ba ñoŋal li nga xamante ni mooy éclairage public muy facture bu am solo te collectivité yi amuñu doole dékku ko depuis toujours et que état bi nga xam moo ñu njabootee njaboote population yëpp depuis boobu mooy dékku facture boobu di ko fay euh, kon euh, mbir yi su fekkee koom-koom barewul ak jumtukaay gëstu yeneen yoon yi nga xamante ni day tax koom-koom bi teew day tax koom-koom bi teew wala bu teewul ñu yaxanal defin bi ba ñu yaxanal defin bi ba euh, la mu daan coûter contribuable du ko coûter looloo tax ñu rafetlu démarche bi euh, ministre collectivité territoriale yi nga xam mooy suñu ministre de tutel ak collègue maire yi fi nekk yëpp ñu am dialogue maanaam waxtaan boo xamante ni duñ ko wër dañuy jaar ci digg waxtaan bi ngir mu doon njariñ ak ministre bi nga xam moo yor wàllu pétrole ak énergie pour que yàlla def benn ci bànqaas yi nga xam gis nañ ni mooy yoon bu ñu ci jaaree dina bëtt te dina tax ñëpp am jàmm état mi daan support am jàmm collectivité yi nga xamante ni loolu dafay nekk pression ci ñoom mun a am tawféex mooy éclairage solaire bi entre autres ak yaxanal lépp li nga xamante ni Euh, dañuy gis ay làmp yu tàkk ba dix heures onze heures midi xam nga loolu kenn soxlatu ko ci éclairage conventionnel kon ci yoon boobu la ñu nekk wax ni collectivité yi naam état mi ngi def ay effort yu bare yu bare yu ñu war a jot ay yokkute ngi ci wante ñu gis ni am na ba tey ay résistance yu am ci yenn secteurs yu ñu transféré pour que budget bi ni mu war a wàccee ci collectivité bi du ko mel soxla yu bare na ñu war a gouvernement bi xaw na jiital ci programme cinquante mille lampadaires yi communes yu mag a mag yi ndax ñu ëpp lu ñu doon consommer électricité danoo tax gouvernement bi mën a financer projet boobu mais ñuy wax ni tamit communes yi nekk en zone rurale manam ñi nga xam ñu ci all bi te ñom ñu ëpp ak communalisation intégrale bi ñoñu yalla dogal na ni aussi war nañ leen bayyi xel ba euh su ko euh du am kumba am ndey ak kumba amul ndey ñëpp aussi dañu mëna dund ci façon bo xamante dina doon tawfiq ak ngëneel